Ndeye Khady Diop asalaamaaleykum mbokk déglukat yi njiitu réew mi daal dinay génne benn décret booy xamante ne moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci ñi ni ñuy organiser ak euh, ni comité euh, de suivi bi toppatoo lu jëm ci wàllu opération force Covid 19 euh, di doxe kon daal dina koy càmbar. wax ne kat euh, dina am ñetti nit yoo xamante ne dinañu taxawal assemblée nationale euh, ñett ñaari nit yoo xamante ne dinañu taxawal au conseil collectivité territoriale ñaar ñoo xamante ne itam dinañu taxawal conseil économique social et environnemental ñaar yu nekk euh, ci association élus territoriaux juróom-benn yi kon dinañu bokk ci ay parti politique ñaar ci pôle Euh, majorité bi euh, ak euh, pôle majorité présidentielle ak ñaar ñu bokk ci pôle opposition parlementaire ak ñaar ñu bokk ci non aligné yi dina am itam ñett ñoo xamante ne dañu bokk ci organisation société civile bi ñaar ñu taxawal organisation patronale ñaar ñu taxawal organisation syndicale yi ak ñaar ñoo xamante ne dañuy représenté association consommateur yi ci jamono boobule France moom dafay dakkandil jaay gi muy jaay Sénégal ay garab yi nga xamante ne kat moom la ñu war a fajee coronavirus waaye itam lépp lu jëm ci wàllu anesthésie réanimation ak médecine d'urgence ñoom waa France seen bopp nee nañu. dañuy ragal ñoom itam ñu dem euh, ba garab ñàkk ci seen dëkk boobule te ñu war a faj ñoom itam seen i doomi xeew kon dañu daal di bind benn ba bataaxal yónnee ko ñu yëngatu ci wàllu garab fii ci Sénégal kii di docteur Annette Seck Ndiaye euh, di euh, directrice générale pharmacie nationale d'approvisionnement def ci taxaw seetlu ñu déglu ko ci jokkoom ak Habsa inimaan Wane. waaw jërëjëf war nañ ci am tuuti jaaxle surtout xam naa ne secteur privé pharmaceutique bi. Euh, war na ci am jaaxle lool parce que euh, ci lima xam li li gën a bare ci garab yi nga xam ne moom la ñuy jëlee bitim réew euh, ci France lay jóge ndax ñoom dañu am centrale d'achat yi nga xam ne ñoom ñoo leen di jëndal garab yi di leen ko indil fii Sénégal li ñu concerné ñun nag secteur public xam nga ne marché public yi day tax ñu jënd ay garab ci euh, réew yi yëpp euh, ci euh, sur le marché international te bu ko defee ñun dinañu jënd Chine dinañu jënd Inde dinañu jënd ci yeneen réew yi waaye li ñu mën a wax ne li France jël ci décision am nañu ko ko njëkk a jël ndax ba pandémie bi kii rek feeñee rek ni ay réew yu mel ni Inde yu mel ni Chine dañu euh, ne dootuñu exporter seen yenn garab yi ak yenn matière premières yi donc fi mu nekk nii euh, jaaxle am na ci wax dëgg yàlla surtout ci fan yii di ñëw ak ci weer yi di ñëw ci garab yi bu fekkee ne réew yooyu nga xam ne ñoom ñooy defar garab yi gën a bare di ko indil fii di ko jaay fii ci ci Afrique ak ci Sénégal su fekkee ne levé yooyu restriction ah mën na am nag ñu jaaxle tuuti loolu daal euh, laa mën a wax. ci jamono boo xamante ne jàngoro coronavirus bi mi ngi law biir Sénégal fi mu ne nii ci bisu tey bi ñu ngi ci ñetti téeméeri cas. ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci su tey bi rek gis nañu fukki cas ak euh, juróom-ñaar yu bees euh, fukk ak euh, juróom cas contact ak ñaar yoo xamante ne transmission communautaire la maanaam xamuñu kat fan la ñu jëlee jàngoro ji juróom-ñeenti patient yoo xamante ne dañ leen hospitalisé woon daal dinañ leen contrôlé ñu négatif kon jàpp nañu ne wér nañu dañuy déglu kàddu yi directrice de la santé docteur Marie xemes Ngom Ndiaye ñu déglu ko ci ay ay ci bésu dibeer bii di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2020 ministère de la santé et sociale jot na saytu yi ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi nga xamante ne seet nañ ko fukk ak juróom-ñaar dellu si nañ ak doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom moom lañuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo koy saytu ci yooyu tamit ñaari cas ñoom lañuy wax transmission communautaire maanaam mooy ñi nga xamante ne kenn xamul kan moo leen ko wàll ci ñi nga xamante ne feebaru nañ te ñu ngi tëdd hôpital juróom-ñeent ci ñoom bañ leen saytoo gis nañ ni amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñi nga xam ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi Covid 19 duggee Sénégal ba léegi. ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci ñi am doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak ñaar fukk wër nañu ñett génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mu mu jóge woon loolu moo tax tey ñu dese téeméer ak ñeent fukk ak ñett yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ci bërëbu fajukaay yi ministère de sant santé action sociale mu ngi gën a ñaax population yi askan wi ñu gën a topp dige yi tax feebar bi ñuy wax mbas mi Covid 19 du law ci biir Sénégal ci yooyu ñu ngi leen di dolli di tere ñuy nuyoo ak loxo di raxas seen loxo yi ak saabu ak ndox di col masque ci diggante ñaari nit ñuy xàll lu toll ak benn mètre waaye tamit suñu demee bay bugg a tisooli wala ñuy sakkat. ñu jël mouchoir te suñu paree ñu sànni ko ci mbalit mi bu ñu amul mouchoir ñu sëkkat ci seen diggante conc yi ñi am jàngoro ji te xamuñu fu ñu ko jëlee xaw a jaaxal lool ñu féete département bu pikin loolu kat moom moo door euh, tax ñuy pompe yenn bërëb yi nga xamante ne dafay faxal di dalal ay nit yu bare bare ñi ngi tarale nag xeex bi euh, ci euh, gox yi nga xamante ne kon gis nañ ne ñi jàngoro ji dal te xamuñu fu ñu ko jëlee foofu la ñu xaw a gën bari mu di mbaaw ak Kër Massar dañu ci ànd ak El Hadj Moussa ak wàllante ci jàngoro yi jàngoroy coronavirus tukkee ci askan bi nga xam ni kenn xamul fu mu jógee nag ñu koy duppee cas communautaire ëlëb na lool ñi nga xam ni ñoo di autorité yeewoo ci département de Pikine ba ñu amal nag opération ngir puudar nag bërëb yi nga xam ni nit ñi fa la ñuy dajaloo ni ki mel ni yenn marché yi nag ngir wàññi li nga xam ni nag moo di daal jàngoro gi law Abdoulaye Timbo mooy maire bu ville de Pikine. temps yëpp ñu ci. xëy na tey jii sax def nañ ko ci bi nga xam ne 17 heures la. mais daan nañu liggéey te boobu ba léegi defar nañu marché Thiaroye marché yu mag yëpp dañ daan bàyyi ba guddi une heure du matin ñu tey jii nit macha allah ñëw nañu fi tey suñu fi jógee dañuy dem marché central le poisson aussi mairie bu mag bi tamit désinfecté institution municipale bi nag jàppale na service d'hygiène bi eh, ci ay jumtukaay yu bëri yi nga xam ne nag loolee dina mën a tax ñu amal seen liggéey amale ko nag ci bërëb yëpp yi nga xam ni moo ngi ci banlieue bi lieutenant bu Touré mooy chef service départemental centrale bu hygiène bu Pikine. jox nañu au moins des appareils moteurs pulvérisateurs ñooñu permettre ñu permettre ñu xeex Covid Covid 19. jox aussi un produit de qualité qui nous permet au moins de désinfecter les marchés les services techniques le parc Lambaye. chef service hygiène bu département de Pikine mu ngi xamle ni rek ni poudre yi baax na lool waaye tamit askan bi war nañ ci gën a dugal ci xeex bi mooy nag bu ñu ñibbee seen i kër ñuy jël daal ndoxam eau de javel ngir nettoyer nag li nga xam ni mooy jumtukaay yi ñuy utiliser foofee ci seen i biiri kër lieutenant Boutouré moo ngi cee ñëw. ñoo ngi ñaaxaat aussi population bi ku nekk na def xeex bi sa xeex. aussi ñu respecté li nga xam ni moom la ministère de la santé wax génn bi aussi ñu xool ni ñuy génnee ñuy génn li nga xam ni farata la ñu génn bu farata amul nag ñu toog suñu kër puudar gi ñu amal ci bërëb bi nag dinañ ko wéyal ci zone yi nga xam ni moo di Kër Massar ak i Mbaaw ak yeneen yi nga xam ni nemeeku nañ ñi daal cas communautaire yi nga commencé di fa tar lool ki nga xam ni moo di maire Pikine nag moo ngi sàkku tamit ci askan wi daal ñuy gën góor góorgóorlu gestes barrières yi tey sol masque yi nga xam ne mu ngi commencé bëri bu naree continuer ni daf a mën a taxaw woote pour que ñëpp nag di solay masque. kon euh, doon jot xibaar yi fii ci banlieue dakaroise El Hadj Moussa Thiam pour rajo Sud FM. El Hadj Moussa Thiam yokk pexe yi ci dakkal li ñuy tuddee transmission communautaire maanaam wàllante bi te doo xam fu ñu ko jëlee loolu kat moom mooy. li gën ndax loolu moom mooy tax itam ñu bañ a yegg euh, ci li ñuy tuddee confinement ndax euh, confinement nekk na euh, mesure boo xamante ne suñu ko jëlee dana lottal lool askan wi askan woo xamante ne sax déjà daal dinañuy lot ci situation bi nga xamante ni moom moo am ni loolu kat di kàddu yi kii di Marie Diouf di consultant euh, ci wàllu formateur ci wàllu management des organisations kàddu yooyu la daal di jibal kon ci suñu émission objection ak Baye Oumar Gueye ginnaaw euh, li ñu tuddee darkase nekk itam ci jafe-jafe ca département bu Goudomp ndax jàngoro ji fi mu ne nii ñiy euh, bay màngoo itam sonn nañu lool ba daal di yëkkati seen i kàddu nee nañ mango yi ci seen bopp dañoo daal di confiné ndax ba ñu leen bayee ba léegi ñu daal di ñoxom gisuñu ndax ndax matuwaay ñu jël ngir bañ jàngoro ji daal di law ci wàllu dem beeg dikk bi euh, ci jamono boo xamante ni itam nawet bi mi ngi ñëw du yomb ci ñoom dañu déglu Mamadou Top Sadio euh, ci micro Moussa Dramé. pilier mango moom ñu engrais bu ñu nee serlew mango la boo xamante ne moom moo njëkk ñor bi mu ngi ñor du mun a ñëw oto du mun a dem balaa oto di di dem baanaam baanaam mooy ñëw mu jënd mais comme tam dañ leen di arrêté ñoom xam tam feebar bi la. mais fu mu ne nii ñun ñu ngi jooy tamit mango bi demul ko nar a jënd ñëwul otoom tamit ñëwul et bi fu bu demee ba dépassé euh, stade bi sarlion bi boo ko chargé si sa ak ba nga jaay ko Dakar parce que def na expérience bi am nga ñetti fan yoo xam ne moom ngay def ci yoon bi mango bi day ñor booy koy far da nga koy tur ñun heure bii dañuy préparer suñu nawet à partir de mango ak kaju nga jënd li nga nar a jënd pour nawet bi nga mën a dem ci àll ak bopp tranquille mën a léegi parce que bàyyi nga dundukaay bi bàyyi nga ko kër gi mais bu fekkee ñi ñi bi baaxul ah san dañuy dem bay am problème dañuy jaxle moo tax ñun fan la ñu wéeru mooy nguur gi rek te nguur bi comme xam na tamit kenn ñaanu ko ñëpp jaxle jaaxle loolu bu fekkee variété bi yàqu na mais yeneen variété yi ñëw maa nga balantakunda maa nga kent xam nga maa nga ket peut-être ñu gis suñu bopp naaw ah, ñi ci mbay mi ñi yëngatu itam ci wàllu secteur informel ba ci Mbour ah, ñi ngi ci ay jafe-jafe nee nañ li ko waral mooy ni ñu séddale enveloppe bu toll ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar yi ñu jagleel ndimbal li ci wàllu tourisme ak hôtellerie ni ñu ko doxalee du noonu dañ ci ànd ak Babacar Sow ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar yi nga xamee ni moom la nguuru Sénégal dugal ci wàllum tourisme ngir xeex ak coronavirus wàllum hôtellerie dong la ñu gis ni foofee la koppar yi dugg suñu sukkandikoo ci honorable député Malick Gueye bu Ngexoox li mu yoy yàbb yi rawatina collectif PME yi nga xamee ni ñu nekk ci wàllum tourisme ci diwaanu Mbuur di koppar yoo xam ni nii la ko tëralee ñeent fukki milliards ak juróom daal di nañ ko dugal ci wàllu dem bég dikk bi ci jaww ji fukki milliards ak ñaar ñu dugal ko ci hôtel yi nga xamee ni fa la ñu yóbbu ñi ñuy am nañu feebar bi fi léeg ñuy seet seen yaram juróomi milliards ñu dugal ko ci béréb liggéeykaay kaay ak agence yi nga xamee ni ci nguur gi la ñu sës rek fukki milliards ak juróom ci crédit yi nga xamee ni moom lañ jëmale ci hôtel yi ak wàllum tourisme di loo xam ne ci gafagak ñi nga xamee ni ay milliardaire la mu mel ni dañuy jalaat ay jàll ñi nga xamee ni seen loxo jotul seen diggi ginnaaw te ñu gën a yëg jafe-jafe coronavirus mooy ñi nga xamee ni ñoo nekk ci wàllum jaayonte bi ci biir hôtel yi ñi nga xamee ni dañuy foraatu ci village artisanal ak ñu nekk ci de sport yi rawatina agence de voyage yi ba tax sax di ñaan jiitu réew mi Macky Sall mu fexe ba ñi nga xamee ni ñii ñoom la ñu mujjëlim kàllankoor yi ci wàllu koom aajowoo ci coronavirus bañ leen andil ay tolof tolof Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. lamb ji nekk ci dëcc ak génn àdduna Mor Nguer di ancien lutteur bu écurie bu fas faatu na nag. ca Kaolack ñu waxoon ko denc tey ji ci dimanche ji ca Touba dañ ci ànd ak Mamadou Camara. mbooleem ñi yëngu ci ak lu làmb ñoom day am nañ tiis ginnaaw ba nga xamee ne mbool Nguer doonoon mbër mu ñu ràññee nekkoon écurie Fass moom nag wàcc na liggéey ci guddik samedi jàpp dimanche boori une heure du matin ci hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack bi ñu jokkook taawam di Birahim Nguer moom dëggal na loolu xamal nañu ne papam wàcc na liggéey boppam xamal nañu ne ayu bés a ngi nii muy ut autorisation spéciale ginnaaw ba mu déggee ne waajuram bu góor yaramam dafa sutante pour mu buggoon a ñëw Kaolack nag seet si ko moom Mor Nguer ginnaaw ba nga xamee ne génn na ci làmb ji Kaolack nag la ñëwoon daldi fi samp kër doon fi def commerce ki nga xam ne tamit moom moo ko fi dalaloon ci Kaolack di Aline Ndiaye doonoon médaille d'or ñu ràññee ko woon lool ci làmb ji ba mu génnee àddina sax yàggul matul sax Sud Communication ak ci turu directeur généralu Sud FM ñu ngi jaale Mor Nguer waa écurie di ko jaale képp koo xam ne kii amateuru làmb nga woon Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mor di woon euh, mbër mu mag a mag nekkoon yëtnaawu euh, mbay Guèye ci écurie bu Fass ay jaar-jaaram ak kii di El Hadj Pape Ibrahima Dieng bi mu jógee Kaolack ou bien environ yi ay Kaolack ñëw Dakar écurie Fass te ñëw benn xaritam di ko di Pablo moo ko fa indi mu nekkoon nag mbër moo xam ne tamit euh, marqué na écurie bi ndax maa ngi fàttaliku bëri bu mag bi nga xam ne bëri na ko ak mànga te boobu mànga toog na lu mat bëri bu rëy bu bëri ak moom stade John Iba Mar Diop daan ko te keroog it maa ngi fàttaliku ñoom Birahim Ndiaye la àndaloon Mbite Ndiaye ak Mbaye Guèye ñu doon bëri boo xam ne dèjà avant que treize lamb ji fes na dell dell dell ba ñu bëri bu ñu kat Ndoumar Diop mun doon conteneur public boobu yëpp doon combat boo xam ne nag li ko waraloon tamit mooy Manga dafa bëggoon bëreeg Mbaye Guèye yàgg ko topp boobu Mbaye mooy champion mais Mbaye Guèye bala moo bëreeg moom day bëreeg ñi nga xam ne ñooy ay liit naam maanaam ñu nekk ci ginnaaw bëri ak Birahim ñu mat si mu insisté ne dafay bëreeg Mbaye Guèye mais ñu ko il faut nga bëreeg Mor kii la ko Mor Nguer koo xam ne bi parce que bëri na fekk ay nekkoon koo xam ne ci biir écurie bi léegi dafa amoon ndax ñi xam ni tamit dañ daan bëgg bëreeg Mbaye Guèye ci bëri jaar ci moom en général ku ci jaaraan ci moom rek doo egg ci Mbaye Guèye ñuy nag nouvelle boo xam ne triste na métti na ñëpp nag ñu ñaan suñu borom xare ko àjjana te yéexuñu ndax tamit li mu def face am na mbir yu bëri yu fa nekk dëgg la def ko waaye moom tamit def bi def na wàllam ndax lañ doon séntu na ko yëpp fu amaan jafe-jafe chaque fois buñ ko programmé boole ko ak mbër làmba ji day fees su dafa amoon xorom mën a bëri ba pare tamit ñu ne xam li muy def mbir la boo xam ne daal te dëgg dëgg dëgg dëgg marqué na économie bi kon ñu koy ñaanal comme li mu la wax sànq ñu nekk koo xam ne souvent daan daje wala ma ànd ak moom wala ma koy jëppale sama oto wala chaque fois affaire écurie bi la mu doon wax ni mu ko bëggee fu ne fu mu teg écurie bi ba ndeysaan bi muy bàyyi ba ba dellu Kaolack à chaque fois bu ñëwaan Dakar wala combat am soit bu ñëw soit mu yónnee nekkoon koo xam ne daal màtt woon na écurie bi doon nit ku baax donc loolu daal laa mën seede ci moom euh, groupe Sud Communication di jàll njabootam di ko ñaanal Euh, aljana ak bépp way euh, dawlu ñu dem ba cité des enseignants bu kunun village ak kër Daouda Sarr foofu le taliba euh, daxa baaxu ca ña dëkkee boox boobule ay métit rek la ñu nekkee ndax tali bu bon rawatina nag nawet bii di yegg si moom moo tax ñu jug ngir artu autorité yi ñu jàppale leen ci boox boobule dañ ci ànd ak Josette Kali lu ko dalee kër Daouda Sarr Kounoune village ba ca cité Mbaba gisee ñu gën kaa xam ci cité des enseignants foofee dara yombul ca ña yeewoo ci yooyee gox ndax ndaxte boobee yoon xar kanam gi dara baaxu si amul goudron bëri na suuf ba noppi bëri ay kamb jafe lool ci wàllum dem ak dikk si ña koy jëfandikoo te daanaka ay at a ngi ñuy nemmeeku lu ni mel. 2001 ba léegi tali bi ni ñu ko fekkee woon noonu la mel ba léegi nii. daal boo ko xasee waaj amatul tali xam ni fa ngay làmb ba ba ngay agsi ci cité bi dara dara baaxu ci dara dara. tali bi baaxul. yoon bi neexut moom. amoo benn changement. yoon bi métti na trop trop nag. tali bi kenn mënu la dem kër Daouda Sarr ñëw te amuloo ay méttitu yaram. ngir bañ seen oto saa su ne muy am jafe-jafe tax na ba foofee jafe na lool nga gis chauffeur buy wàcc woo ak code de la route loolu sax di yéexal bu baax a baax seen liggéey. du ñu am sax fu ñu jaar. pour nga xëy liggéey rek mun nga def une heure moytu ku gaaw puisque boo si jaaree il faut nga am noo xam ni noom ngay defee. yile jafe-jafe di gën a yokku saa su nawet bi taxawee. ndox bi day stagné sa oto day yàqu. bu nawet jotee nag ca la gën a tee rawati fépp ay ndox la am sax foo jaar pour génn pour génn dem Rufisque rek dañuy am problème. bu nawet ñëwee bu sonn kenn du dem. gars yi kunul la ñuy yem nit ñi di débrouiller dox. ci benn kàddu ñu ngi woo autorité municipale yi ak étatique yi ndax ñu gëstu leen. di wax autorité yi nañu ñëw defaral ñu suñu tali bi tali bi rek lañu amul tali sa développement day jafe. il va falloir que ñu am yenn jumtukaay yi surtout jugee si wàllu yoon. te loolu noonu bu sooxee rek dafay indi ay jafe-jafe. li nga xamante ne moom la population yi yàgg jooytu mu doon une réalité. motul sax deux kilomètres. ñun tamit ci dëkk bi la ñu bokk nag. ginnaaw ay ati at bi ñuy woote wàllu ñay yeewoo ci boobee diwaan ak automobiliste yi ñu ngi wéy di jaar ci boobee yoon te di xaarandi ay tontu yu bàyyeekoo ci njiit yi. tali boobu wax nañu ko defax mu dugg ci pàcc bu njëkk bu Promoville waaye ba tey eh, doxaguñu ko donte sax ñu ngi ciy def ay jéego boobaak léegi ngir euh, fexe ba euh, dëkk yooyu le euh, di Kounoune village ak kër Daouda Sarr ñu mën bu ñu bëggee dem ak dellu si mu yomb leen dañ ciy déglu Paul Diakham di chef de village bu cité Mbaba gisee ci micro def nañ ci démarche depuis parce que bi ñu installé si li ñu njëkk a constaté mooy amuñu woon yoon fii ba Kounoune tronçon bi entre Mbaba gisee Kounoune def nañ lépp ba am appui Ageroute accompagné ñu en 2010 accompagné ñu également en pour que mun a praticable li ci tegu mooy defoon nañu ay démarches autorité ba ñu ne ñu xëy nañu bokk ci Promoville donc ba ñu am ci yaakaar bu takku gisoon nañu aussi ay topographe yi def nañ levée topographique yooyu yëpp ñëw nañ fi mais ba léegi daal mbir mi antawul te wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan nguur gi ñu jàppale ñu parce que soo seetloo sax yoon bi tane woon diggante kër Dadosaar ak Kounoune dafa yàqu complètement waxatuma nag nga war a ñëw te mbaaba gise donc euh, yooyu yëpp ay jafe-jafe la nit ñi dañu dem di dig te ba léegi amaguñu vraiment fu ñu mun a jaar pour euh, surtout nawet su jotee dañu am vraiment coono yu bari premier programme bi moom passé na mais deuxième programme bi wax dëgg yàlla ngi boori jaxaay yaakaar na neñ suñ fa jógee ñëw Mbaba Guissé mun nañ dem vraiment yaakaar bu baax dañ egg si. Ndeye Khady Diop Sud FM.